Ah, assalamualaikum Boki, mbokk ah, comme niko sama mbok yi waxe tay besu nakar la besu tis la pour sunu démocratie démocratie au Sénégal ñun nak Sénégal dafa am luñu xamé dafa am luñu ñu won moy en tout cas la bu yagg voter la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

diko top, Sénégal bëgg ñu def ko ñu donc ñuy wax ni mobilisation bi du suba gina suba ak yi di ñëw dañuy continuer taxaw dañuy continuer Avec ak mom te wax nañu ko waxati ko ñi njëkk wax wax nañu concertation

le 2 avril ce que nous xaar ci Nous xaaruñu ci dialogue concertation bu fexé nak ba après le 2 avril amul élection bu installé chaos su il en sera le seul responsable le monde entier sénégalais ngi Sénégal ñukkal na Sénégal li Sénégal ci Sénégal donc nous la République de manière a de le faire. donc c'était important pour nous de se retrouver nous avons voulu le faire de manière symbolique avec tout le peuple sénégalais au terrain de Khariala. On est allé là-bas, on nous a empêché de le faire, on est venu ici au siège de Tahaou Sénégal pour pouvoir le faire. Donc voilà, nous sommes venus simplement pour montrer notre frustration, montrer notre désaccord avec ce qui est en train de se passer dans notre pays. Demain, il y a un dialogue national qui démarre. Qu'est-ce que vous, en tant que candidat, vous en pensez Est-ce que vous allez y aller qu'est-ce que vous réclamez Non, nous, on ne va pas y aller. Le front des euh, FC25, qui compose aujourd'hui 16 candidats, nous avons décidé de ne pas aller répondre à ce dialogue-là. Parce que simplement, nous pensons qu'il n'y a pas lieu de dialoguer. Il n'y a rien sur, quoi on devrait dialoguer avec le président de la République. Euh, ce qu'on attend de lui, c'est que le peuple sénégalais attend de lui, ce que la communauté internationale attend de lui, c'est qu'il prenne le décret pour convoquer le collège électoral et pour dire aux Sénégalais, voilà, j'ai décidé, en tout cas le jour où vous allez tous sortir pour voter et élire le président de la République. Donc ça, c'est pas compliqué pour le faire. Donc la décision du Conseil constitutionnel ne lui demande pas d'aller dialoguer de concerter les acteurs politiques c'est les autorités compétentes, c'est-à-dire son administration à lui. Il peut parler à son administration, fixer la date de l'élection pour qu'on aille à l'élection. C'est l'essentiel. Les Sénégalais sont fatigués. Les Sénégalais sont, fatigués de cette situation-là. Et nous appelons encore une fois le président de la République à plus de retenue, mais surtout de faire ce que nous attendons de lui, c'est de, de prendre la date de l'élection. Mais de le faire avant la fin de son mandat. Parce que ça, c'est important. Et c'est ça que la décision du Conseil constitutionnel lui dit. L'élection doit se tenir avant la fin de son mandat. Maintenant, tout ce qui se passe, c'est du dilatoire. Euh, on, on reste on perd énormément de temps, on n'avance pas. Depuis la décision du Conseil constitutionnel, ça fait dix jours maintenant, ou un peu plus, on n'a pas avancé. Et on aurait pu avancer le lendemain de la décision du Conseil constitutionnel. Donc c'est pour ça que nous, nous avons jugé qu'il n'y a rien à dialoguer, donc on n'ira pas à son dialogue. Nous, on va dialoguer avec le peuple. Demain, lundi, mardi, nous allons dialoguer avec le peuple sénégalais sur vraiment les, les, les besoins actuels, en tout cas la situation actuelle du pays. merci monsieur Mamadou Dia merci tey moom dëj la pour ñun euh, pour waa Sénégal yëpp euh, dëju démocratie la damay wax sànq ne réew mi ñi fi xeex pour démocratie taxaw man tey ñooñu lay xalaat ñi fi deret ji fi tuuru ndax démocratie taxaw ndax réew mi nekk un état de droit ñi nga xam ne nañ seen bakkan pour Sénégal mu nekk un état de droit tey man Aliou Mamadou Dia sama xel ci ñooñu la dem parce que li tax ñu doon xeex mooy pour que lu mel dootul am Sénégal tay président Macky Sall de manière unilatérale décidé na les sénégalais yi mom moy un droit constitutionnel le droit de vote xañ donc liñu tabaxone ci démocratie depuis avant indépendance ba président Macky Sall nërmeel na qui ci acte bi nga xamné ne la def donc lolu ñun mënuñu en tant que candidat tok bayyi lolu bu continuer té nous manifester li nga xamné mom moom moo ñu naqari nous taxoon ñu ñu pour que ñu génn mu voté de manière symbolique bëggoon ko def nak ak le peuple sénégalais mo taxone ñu né dañ koy def terrain xaar yalla wo wa Sénégal yépp wa dakar yépp ñu genn ñu def vote boobu malheureusement biñ ko démé ci suba ñu téré ñu nañu du ngeen ko fi défé ñu dem terrain Sacré Cœur ñu nit ñu du ngeen ko fi défé ki lañ ñëw fi ci siège taxaw euh pour mën de manière symbolique exprimer li nga xamné mom lañu bëgg exprimer di wax nak ni euh sénégalais yi mobilisation bi warul taxaw warul tant que président de la république Liko Yon sant décision conseil constitutionnel bi mooy na le plus rapidement possible élection présidentielle. alors je ngay réitérer encore une fois li nga xam sa position ci dialogue bi nga xam président ànd na fas entamer dès demain. waaw man je pense que Douma varier Douma varier ci li nga xam ne moom la ñuy la ñu jàpp mooy suñu position mooy suñu décision demuñu ci dialogue bi yónneewuñu fa yóbbantewuñu fa. dégluwuñu sax lañ fay waxtaane donc pour wax ni ñun suñu position foofu la président li ñu koy xaar du dialogue du concertation li ñuy xaar ci moom mooy mu jàpp datu élection ni ñi dem campagne ki ñuy fal ñu fal la ku gagné mu transmettre ko le pouvoir Sénégal dellu ci jàmm ñu dellu ci liggéey loolu la ñu bëgg.